nuyoo ba gën a tedd ci nuyoo ya di leen santale sama borom subhaanahu wa taala di ñaan yàlla kàddu gi may yëkkati yàlla na fekk ñëpp ci jàmm tem ànd ak i tawféex ci barkeb sëriñ Saalifu Mbàkke di yëkkati ay kàddu di ko jëmee ci ñi nga xam ni sëriñ tubaab boole na ak ñoom ñu fas yéene ànd di ko liggéeyal ba keroon ñu koy fekki kàddu yi nag képp koo xamante ni bii ni dégg nga ko ci mbokkum taalibe yi laa wax nag maa ngi lay ñaan ci barkeb sëriñ bi na ko jot li ko bokkal pas-pas ba mu dugg ci noppam bi ci jiitu mooy ginnaaw bu ma leen soññee ci samedi bii di ñëw insha allahu rabbi bëgg naa ñu def daje bu yaatu boo xam ne maa ngi ciy soññi jëwrin yi kenn ku ci nekk maa ngi sàkku nga soññi sa waa diwaan ngeen jaayante ko fekk ma cité Fadia ca seesub waa daayira xidmatu saalihina ba ci njiital jëwrin sëñ Modou Gueye euh, nañ ko def samedi ndax dama bëgg ñu waxtaanaale ca ñaanu tamxarit gi nga xam ni sunu borom daf ñoo suturaal ba at mu ne ñu di ko def muy gën di taw féexe te lépp luñ fay sàkku rek yàlla ak nu kuy yàlla ak nu ciy suturaal xam naa sax eh, olof yi liñ naan aada aada sax ñu koy def mooy aada tuddul aada aada la tudd baatub arab la aada mooy delluwaay mooy loo def mu jig la nga dellu defaat ko eh, aada sax dafa nangu nga def dara mu jig la nga defaat ko rawatina nag loo xam ni dangaa rafet njort ci ni rendez-vous la boo xam ni day mel ni rek da nga ciy dajeeg sëriñ Saalihu Mbàkke dëgg dëgg jëmmam ja ci leer def tawassul jàng sóoratu yaasin ba ci innama amruhu ida arada shay'an an yaquloo kun ma fas la ma cay fas ci ndox mi yàlla duñu suturaal nag muy doon ay tawfeex ci ñun ak sunu njaboot ak képp ku ñu yéen a jàmm loole bëgg naa caa indi yaatal yu yees peq ca jataay ba organisation bu set wicc boo xam ni ñëpp danañ ko waajal weex tàll rek fas yéenee toroxlu nungu ñaan ci yow ma asura bi incha allahu rabbi moo tax ma bëgg képp kuy taalibe rek teg naa ndigal ci sa doq nga fas yéene koo jëfe samedi na nga déplacé wu ngay góor ngay jigéen na ngeen mobilisé wu fas yéene ñëw euh, euh, cité Fadia ànd ak ñun xadara bi ci samedi bi incha allahu rabbi buñ fa jógee dinañu xam tamxarit gi nan lañ koy tërale ak ñan ñoo koy yore ak nu muy demee népp incha allahu mawlaana ba ca des mooy fii jamono toll dëgg la xëy na bu ne missionnaire yàlla sunu borom bu la yabalee ci jaam ñi ngay taalibu Serigne Saliou Mbacke boo xam ni dangaa yore leerug sëñ bi di ko def ci xol yi missionnaire moom mooy kuy leeral lépp lu lëndëm kon sa kàddu mën naa bañ a génn fenn fu ne sa kàddu war na faa mën a dugg waaye nag mbirum politique dafa am nu ma ci baaxoo doxe mooy na ci sëriñ Saliou daan doxe ki fi nekkal sëriñ Saliou itam di doxe noonu fas yéene wu ma koo teggi keroog nag bi ñu waxee ni Euh, Amadou Ba indi na fi euh, gàtt ci tabaski gi gis naa ay réaction après bi waaye ma leen di xamal ni nit ku baax du delloo tiraanga buñ joxee nit tiraanga ba nga jàpp ne nag tiraanga joojee daa tekki jubluwaayu sëñ bi booba xamoo sëriñ bi déedéet tiraanga kenn du ko delloo nit ku baax bokk as gor du delloo teraanga bu fekkee teraanga di yàllaa tax ki la indil teraanga nag bu fekkee da koo tënk ci lu neexut sama borom loola moom lislaam récité na ko avant nga di ko récité waaye sëriñ de day këram ga lu ne fa daan dugg ku ne itam fa daan dugg ñaar duma ko gàntal nit ki lay jox teraanga te dib jullit ak ki lay seet si jullit même bu dul jullit sax nanga ko recevoir jikko ji nga toll te bañ koo recevoir jikko joo xam ne jikko ju jikko ju ñaaw la am maa nag lii nga xam dangeen koo dëgmal te sëriñ si kenn ku ci ne ak nanga nga cay doxe ma leen di xamal ni képp ku ma féete fenn ci ñii di politique ñu xam leen ràññee leen ci dëkk bi la ko tàmbale ci kilifa gu màgg ba ci gën a tuuti xamuloo ma man kenn rek laa àndal muy Serigne Saliou Mbacke na leen leer nañ bu leen ma dugal ci politique mukk dama leen koo ñaan bu ma ci kenn dugal képp ku jël sama photo di ko méngaleeg benn politicien loolu duma la ko baal ndax man nekkuma foofu man dama gëm tuutil mulka man tasha wa tansiul mulka min man tasha wa tuizzu man wa tuzillu man tasha bi yedikal xayir bi yedikal xayir googu nag fa laa nekk bi yedikal xayir nag daa yaatu ndax loxob sëriñ Saaliw ngi ci biir sunu boroom dafa wax ci alquran ni man may jël pouvoir teg ko ci loxob ku ma neex noona laa koy roccee ci loxob ku ma neex danaay jox teraanga ku ma neex danaay xañ teraanga ku ma neex ndax lépp luy yiw mi ngi ci sama loxo bii man yàlla kon yàlla yàlla moom politique na ba noppi nee na dem leen fu leen neex ngeen campagne wax leen lu leen neex man yàlla ma ñëw def li ma soob la soob yàlla rek ay am saa su ne kon man foofu rek laa nekk kon nag na ngeen bàyyi xel loolu te xam ni li ma gëm mooy la may am kenn mënu ma ko jox ku dul Serigne Touba. Sëñ Tuubaa bu nammee ki gën a bon ci nit ñi teral ma sax dana ma teral te du ci man dara ndax ku tedd ki moo yilif ruu yi te it moo yore nga ji Sëriñ tubaa yore nga ji ci man ak ci képp koo xam ne mel nga ni man waaye keneen yoru ko kat la ca toppaat mooy képp koo xam ni ñu ngi lay xoole jëmmi Sëñ tubaa ji yaa xam ngay ab sëriñ wala ngay jëwriñ ju yaatu ginnaaw nanga xam ni la sëñ tubaa doon bañ ba léegi mi ngi koy bañ ci dereti gor yi te képp ku fi nekk ab jamono nga fi ne rek jóge fi dem keneen ne keneen nekk fi waaye taalibe sëñ tubaa yi moom dañ fiy nekk ba faw di jël seen teraanga di ko jox waa kër sëriñ tubaa yi benn milliard wala benn cent million teraangay ñetti fan bu la xañee teraangay giirug dund sa xam-xam soriwut teraangay ñetti fan mooy ki ñëw yëkkate un milliard jox ma ma fàtte sama aveniru njaboot te ku njaboote ay nit donte téeméeri nit la am na ñu ca am licence am ñu ca am doctorat ñiy def master 2 def formation seen diplôme yaa ngi seen trois yu ñu dugal ñi seen diplôme yaa ngi seen rondal yu ñuy dugal seen saag yu ñuy dugal ñoo ñooñee nag seen avenir baax mooy sa teraanga ndax dañ lay jox teraanga ba nga jóge fi ñu naan say doom sa baay lan fasaloon kóllëre teraanga jaa ngi nii say doom jóge fi ñu naan say sët sa maam lan fasaloon teraanga teraanga jaa ngi nii teraanga joojee nag mooy teraanga jay sax ba ca kanamuk Sëñ Tuubaa waaye teraanga jun la mën a indil ngir def loole benn manipulation ci njaboot gi nga xamante ni bii nii amuñu ku dul sëriñ Touba te lépp luñ am fa lañ ko fas yéenee yóbbu te seen lépp bolokewu na su boobaa loola day joojee teraanga mooy teraanga yi ñetti fan yaa ngi koy yàq teraanga yi à mooy giiru dund te loolu day képp koo xam ne yaa ngi tudd sëñ Touba wala ñu lay tudd tudd sëñ Touba war ngaa rus lu mel noonu loolee lu mat di bàyyi xel la loole lu mat di bàyyi xel la sunu boroom lu am da koo neex ba ci ñi topp sëriñ si sax ku ci jub sunu borom nee damaa neex ku ma defee mu dëng nee na damaa neex alquran a ko wax innaka laa tax di man ahbabta walakin allaha di man yashaau yow muhammad yaa gën ñépp waaye nag ak jub akuk dëng ci man yàlla la nekk ndax dagg dagg naa benn terrain bu ñuy wax sawara te foog mu am ay dëkkandoor dagg naa benn espace bu ñuy wax àjjana te foog mu am ay dëkkandoor yoonu euh, dëkk ñay ñay dëkk ñay dëkkandoor sawara foog ñu jaar seenu yoon yoon woowee mooy wax lu bon def lu bon wax lu ñaaw def lu ñaaw ak yi ko ay ci aju yëpp ñu jëm àjjana foog ñu jaar seenu yoon mooy def lu rafet te di ko wax te maandu ci lu seen nekkul ndax dañoo nekkul ay citoyen aha kay yéen ñëpp ay citoyen ngeen da ngeen a war a woote aha kay ba ci man mii donte xawma sax nu ñuy wootee man xawma sax nu ñuy wootee mosuma woote waaye citoyen da ngeen a war a woote waaye comme suñu borom la ci biir wa asa an tuhibbu shay'an fekk na wa huwa sharrun lakum alquran nee na bari na lu nit di bëgg fekk na musibaam rek moo ca nekk wa asa an takrahu shay'an fekk na wa huwa xayrun lakum bari na looy sib fekk na sa yiw rek moo ci nekk comme nag la yiw ne ak la yiwa di ne la na ci biir mbóot ma sunu borom képp moo ko xam bàyyi leen seen bopp yàlla te doyloo Sëriñ Tuubaa bàyyi leen seen bopp yàlla te doyloo Sëriñ Tuubaa te nag yéen bu leen nungu ku leen jaay ndax da ngeen a jaar ba noppi ba ngeen sukkee seen bëti wóom yi ni jébbal naa la sama bopp àddina ak alaaxira da ngeen caa ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa léegi nag boo xësee ba jaay sa bopp Sëriñ Tuubaa bul nungu ko la wanteer keneen ndax ku Sëriñ Tuubaa jënd ba noppi kenn amatul sa njëg ku sëñ tubaa jënd ba noppi kenn amatul sa njëg ku sëñ tubaa jënd ba noppi kenn amatul sa njëg kilifa gu nag dana toog ci buntu këram ku ñëw ma recevoir ko waawaw ku ñëw ubbil ko sooy buntu bu la waxee na ko diglu te na ko ñaanal ndax jullit nga waaye bul xaabaabal bul dévier bul parparloo nekkuma foofu nii Sonko nii Macky nii kasaa wa kasaa kenn képp na ci sama kanam ma gis ko te duma ko jaawale kenn mooy sëriñ Saalihu Mbàkke gisuma kaneen sama teraanga sëriñ Tuubaa ko yor kenn yoru ko moo ma koy jox saa su ne fa ubbil na ma buntu bu ne xéewal yaa ngi bàyyeekoo fu ne ba sax nee na tasar loolu maa ngi leen koy bàyyiloo xel samedi ak jàmm jox naa ñëpp rendez-vous bu ngeen ñëwee jotaay bi dina gën a yaatu ñii jëfee ndigal ñëpp jox naa leen rendez koo xam sa bakkan not na la nag sa bakkan tënk na la wala àddina tënk na la wala yëng-yëngu àddina yi tënk na la ba tax jëfe woon ndigal loolu amoo man compte rendu sëñ Tuubaa mi taxoon nga jëbal ma sa bopp moom nga amal compte parce que yaa ne ko jox naa la saabu àddina ak alaxira ngir jëmmi tubaa lu luñ ma digal ma def luñ ma tere ma ba te contrat boobu nag mooy contrat bi gën a dis ci contrat yi ndax contrat la boo xam ni gars yi baax yépp a ko yër contrat boobu sëriñ tubaa daf koy jël jox ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu xool contrat bi jël ko jébbal ko sunu borom ñu jël contrat bi taf ko ca lawkul maxfuus ëllëg yowmal xiyaam contrat ba day nekkaat dëmm ci sa kanam ñu la yow da yaa waxoon lii waaye yaa def lii gor su war na koo moytu kon nag taalibe jëfe ndigal la nga xam ci yoonu murid joxuma kenn ndigal képp koo xam ne samdi ak foo mën a nekk ca ndakaaru nag laa wax xanaa ñi génn ndakaaru foo mën a nekk ca ndakaaru te di ab taalibe bu samdee ginnaaw takkusaan bu ma jàkkaarluwut ak yow fa nga toog na na la leer ni kontaanuma na la leer ni itam bëgguma na la leer ni itam xëtt nga ndigal ci ci anam ba gën a rafet nag conséquence nag sa affaire la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international